wa inni u'iizuha bika wa dhurriyyataha mina ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati ash-shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñi ngi nuyu mbokki jullit yépp nuyu jullit tey nuyub lislaam tey ñaan sun boroom subhaanahu wa tabaraka wa taala sunuy fekk leen ci yërmande ak jàmm bu mel ni dañuy dellusiwaat ci sunu jotaayu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttali di jotaayu jàngale comme ni ko suñu borom waxee ci alquranul karim ci jullit ñi sant leen ñu koy fàttaliku te di fàttali konte ci sunu biir ci jamono yuñ man di toll mel ni sunu jotaay bii mujj jàngale woon nañu lan mooy farataay koor ak ay sunnaam ak lan mooy farataay asaka ak yan ak yan la kon suñu tey dañuy dugg ci bunt bi jàngale lan mooy farataay xaj mooy xaji màkka mu ne fas dun ab dog la fil xaj ci aji màkka mooy aj faraidul xaj ji faratay xaj la day him fa ñoom arbaxu ñeent la fa ula bu njëkk ba an niyatu mooy yéene ala ci kaw la nga xam ne yusrahu deef na ko yoonal summa tawaafu topp wërga lil ifaadati ñeel ifaada uxdudi na nga lim saaniyatan muy ab ñetteel lëxëe ñeel ko bi xayri fanadi ci ludut fen wa sax yu naa ak sunug dox bayna safa ci diggante safa wal marwati ak marwa saalisatul mahduudi aji ñetteelug seenug lim duuna miryatin ci dul werante summal wuquufu topp taxawaay ba bi xarfa ci xarfa istamix na nga dégg lii ñeen ma raabixal arbaxi ñeenteelu ñeenteel ba kun na nekk za maxrifa di boroom xam mu ne kon faratay xaj boo koy lim danga naan ñeent la kon aj aji ci boppam ñeenti ponk la ñeenti ponk yooyu nag ba ca njëkk mooy yéene kon bul fàtte ne na la ci sunu bind yeeweesu ca ginnaaw ne la jaamu yàlla yëpp la cay njëkk kon mooy yéene kon nag li njëkk ci aji màkka mooy yéene mooy bi njëkk ñaareel ba mooy tawaaful ifaada mooy wër kaaba gi wër gi ngay wër kaaba gi am na ñaari wër nag am ndax am na tawaaful xuddaam xuddum tawaaful xuddum nag mooy wër gi nga xamee ne wëru nuyoo la bokkut ak wëru farata gi tawaaful ifaada mooy wër gi nga xam te ni moom ngay wër kaaba gi muy wër wër goo xam te ni wëru la te li ci ëpp mooy nekk ci bisub fukkeel ba nga xamee ne mooy tombeek suñu bisu tabaski nga xam ne mooy bis boo ko defee ba pare rek da nga yeewee ko ci aj gi kon mooy ñaareel ba kon wër kaaba gi ñetteel ba mooy dox diggante safa ak marwa safa ak marwa mooy ñetteel ba ñeenteel ba mooy taxaw gi ngay taxaw xarafa ca waxtoom ci aw waxtoom mooy ñeenteel kon nag ñeent yooyu mooy ñeent yi nga xam te ni mooy farataay xaj xarafa nag lu am solo la ci aj ndax am solo gim am solo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alxajju xarafa kon xaj mooy xarafa kon xarafa lu am solo la ci ponk aj yi kon ñeent yooyu mooy ñeent yi nga xam ni mooy farataay xaj ba ca njëkk mooy yéene ñaareel ba mooy tawaaful ifaada ñetteel ba mooy ba ak marwa ñeenteel ba mooy xarafa kon ñeent yooyu mooy farataay xaj mu ne faslu lii ab dog la fii sunanihi ci ay sunnaam moom xaj sunanuhu ay sunnaam baa un baala ata dikke ne mu waxada di lu ñu wéetal min di yaa in ci ginnaaw yaa taxtu ca suuf laa fawqu déet ca kaw ursula na nga jubal kon mu ne sunnay xaj moom fukk la ak ñaar ci ab lim ndax yaa la ak baa yaa fukk baa ñaar muy fukk ak ñaar day bañ nag nga tomb baa gi ci kaw mu nekk tax moo tax mooy wax na la na nga ko tomb ci suuf waaye waxuma ci kaw kon boo ko tombee kon ci ta ci kaw day ëpp kon ba ak yaa yaa ak ba day nekk fukk ak ñaar kon loolu mooy sunna yi sunna yi nag dañuy bàyyi xel ci ne yenn saa yi nga lim yoo xam te ni ay warugar la ci tey ci sunna yi lay bokk ay warugar la ci sunna lañ koy tuddee waaye ay warugar la moo yoo xam nii boo ko defut aj gi du yàqu di nga am luñ la teg loo xam te nii mooy tax nga defar ko mu ne fa arbahun ñeent la min ha ca ñoom yafaaluha dana ko jëf man kaa xam ne xajja xajj na aj na bixtiraami ci wormaal la daa ixraami fa armal ga xuslun mooy càngaay yakunu dana nekk mu muttasil di jokk bi ixraami ca armal ba tajarrudun ak raflewu mooy bàyyi xanin maqiisi walif lu ñaw famtasil na nga dégg ndigal illaa bi lubsihi ndare ay yére isaaratan mooy taraxlaay waridaa ak làmbaay misluhuma seen kem ñoom ñaar naxlaani ñaari dàll ya raafiq na nga àndaaleeg man ka nga xam ne hadaa jubal na wala hadaa jub na raabihul arbaxi ñeenteelu ñeenteel seen indal xaw fi fa imaamu xaw fii radiya yal na gërëm anhu ca moom man ka nga xam ne anaara leeral na jaw fii sama dënn man Sëriñ Tuubaa talbiyatul mooy wax la bayka jaalibatun bay aji bijj lil ajri ñeel ay yool fii sunnatil mushaffahi ci sunnaas aji rammuja al mubarri kay aji baax alayhi yàlla na nekk ci moom afdalu salaati gën jaa sell xéwal yàlla gën jaa tëdd xéwal yàlla ya wasalaam ak doole ak mucc fii aalihi ci ak ay ci ay ñoñom wa saxbihi ak ay saxaabaam alxurri ñay woy sang alkiraam ña di way tedd mu ne kon sunna yi fukk la ak ñaar waaye daf koy xaaj nag ci ñetti xaaj yoo xam ni ay ñeent ñeent la koy def kon ba ci njëkk nag mu ne ñeent yi ci njëkk mooy armal booy armal da ngay am sangu boo xam ne da koy sangu sangu googu nag sangu farata rek la comme ni ñuy sangoo farata mook sangu googu ñoo yem nga yéene nag sangu googu daf day sësaloo ak armal gi te boo sangoo ba dañuy sopp sax bu dee jamono joo xam nii la mënees na faa naafile nga naafile ñaari rakka door a armal kon ba ca njëkk mooy sangu ñaareel ba mooy raflewu ci lépp lu ñu ñaw lépp loo xam dañ koo ñaw muy tubay ak yéreeg dañ koy bàyyi doo ko sol looy sol kon mooy taraxlaay ak làmbaay raxalaay ak làmbaay nag mooy li nga xam ni moom lañuy ñuy woddoo bu dee góor ak moom lay teg ci kawam mu def ko ak yëreem benn bi ñaareel bi mooy muy teg ci kawam def ko ay yëreem kon bu dee góor lépp lu ñaw da koy bàyyi ba ci sax ay montre sax bu dee ci ngiru imaam Malik montre sax du ko takk wala lu mel ni kurus du ko ko teg du ko def ci loxoom lépp loo xam te ni day day wërale ab lii daal bu ko def kon li muy def mooy taraxlaay ak làmbaay lay lay jëfandikoo ak ñaari dàll mooy ñaari dàll sarax lay doon kon ba ca njëkk kon mooy sangu ñaareel ba mooy raflewu ci lépp loo xam te ni dañ koo ñaw mooy nga sol ñetteel ba mooy nga sol taraxlaay ak làmbaay ak ñaari dàll yi ñaar yi dañ koy boole mu nekk ñetteelu sun sunna bi ñeenteel ba mooy wax la bayka wax ki ngay wax la bayka moom ñeenteelu yi la bokk kon sunna ñeenteel bu njëkk bi moo yu njëkk yi ci sunna yi moo nekk noonu ba ci njëkk mooy sangu gi ñaareel mooy bàyyi lépp lu ñu ñow ñetteel ba mooy sol sa taraxlaay ak làmbaay ak dàll yi carax yi ngay sol ñeenteel ba mooy wax gi ngay wax la bayka allahuma la bayka boobu kon ñeenti yooyu mooy ñeenti sunna yu njëkk ci xaaj bi mu daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ni mooy ki xam te ni moom la suñu jox ràmm gu mag ëllëg yamal xiyaam mooy yonent bi nga xam te ni mooy aji ràmm ji di koy ñaanal waa këram ak saxaaba yu tedd yi saxaaba yi nga xam te ñooy woy tedd ñooy woy ñooy ay sang kon loolu mooy xaaj bi njëkk ci sunna yi kon nag dañuy yamale kon foofu suñu kàddu su defee suñu jataay bii di ñëw ku ñu topp incha allah rabbi ñu mottali sunna yi xaaj yi daal di dugg ci bunt bi nga xam ni mooy buntu mottali gi nga xam ni moom Sëñ Tuubaa def muy mottali def ci ay wax ci lenn ci ay ngëneelu njàpp ak li ci aju kon dañuy yemale fii kàddu yi euh, di jox dig daje ñëpp ci suñu jotaay bii di ñëwaat incha allah rabbi ñuy wax ne lépp lu jub rek nañ xam ne ca yàlla la jóge ñu dëng nag ñu xam ne ci suñu jëm yu xeeb yii la ñu koy jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñiy teewlu jotaay bi yëpp di kontaan lool ci soññe yi di ci sant bu baax di ñaan su moom defal ñu jàmm ak tawfeex in uridu ila al islah mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa sëriñ bi da sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey